alors Marcel euh, on parle football. Euh, <laughs> bien évidemment musique, voilà <laughs> tey jii équipe yi qualifiée ci mondial Qatar 2022 bi daanaka dinañ xam fi ñu féete ak tirage au sort yi. Mhm, exactement et ce n'est pas un poisson au sort des phases finales de la daal euh, di am donc ce vendredi 1er avril 2022 bu 16 ci centre des expositions de Doha donc euh, au Qatar loolu di euh, di nar a am donc ñu gëstu xool les équipes qualifiées ñan ñoo qualifié fu mu nekk nii euh, ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo qualifié sur 32 possibles donc ñuy fàttali équipe yi nga xamante ne ba léegi qualifié guñ dafay nar a donc benn barrage intercontinental diggante benn équipe CONMEBOL donc Amérique du Sud ak AFC bu Asie donc le Pérou les Rica wala Nouvelle-Zélande ñoom ñooy xaar barrage UEFA euh, Écosse Ukraine wala Pays de Galles ñoom ñooy nar a a dem euh, euh, zone UEFA bi donc ñuy ni ñoom ñoo qualifié d'ores et déjà on commence à tout seigneur tout honneur permettez-moi mmh. d'être chauvin CAF avec la CAF et donc le Sénégal qualifié le Maroc la Tunisie le Ghana et le Cameroun UEFA ñu ngi ko doon wax keroog 12 ñoom ñoo qualifié gum fu mu nekk en attente donc de l'Ukraine Écosse wala Pays de Galles donc l'Équateur ñoom ñooy euh, constituer zone CONMEBOL Amérique du Sud donc en attente du Pérou euh, bi nga ni prochain adversaire vainqueur Émirats Arabes Unis Australie lay nar a dajal CONCACAF on a déjà euh, trois qualifiés en attente d'un quatrième donc les trois c'est États-Unis Canada ak Mexique daal di complété donc ñaar yooyu et puis Costa Rica bi nga xamante ni moom mooy nar a nekk le prochain adversaire de la Nouvelle-Zélande ce sera en juin prochain et en Asie la zone AFC le Qatar l'Iran l'Arabie Saoudite le Japon les les habitués ñu ngi xaar itam Émirats arabes unis bi nga xamante ni moom mooy nar a dajeek Australie en demi-finale avant d'espérer espérer affronter le, le Pérou en finale de ce barrage soxna Naata. Mm, léegi Marcel ñu taxaw tuuti répartition chapeau répartition euh, chapeau donc euh, dañu war a xam ne euh, ça a été mise à jour depuis hier démb daal di def répartition chapeau yooyu noonu benn répartition bi nga xamante ni da doon dépendre en fait ci classement FIFA bi bi noonu wax sànq bi nga xamante ni Sénégal daf ci reculer sur le plan mondial mais qui reste toujours leader en Afrique loolu waral donc ñu daal di euh, répartir quatre chapeaux yi nga xamante ni huit sélections ñoom ñoo koy nar a euh, composé et puis vice versa lors du tirage on aura huit poules de quatre sélections donc ñu gën a gëstu xool euh, le chapeau 1 et le chapeau 2 chapeau 1 bi Qatar Brésil Belgique France Argentine Angleterre Espagne Portugal que du gros à part que des gros à part le Qatar et puis le chapeau 2 Mexique Pays-Bas Danemark Allemagne Uruguay Suisse États-Unis Croatie ñu ngi gën di wàcc niveau niveau mais c'est toujours mhm. euh, un niveau euh, très très considérable. soxna Naata ñu taxaw ci chapeau 3 euh, à 4 plutôt. chapeau 3 le chapeau qui nous intéresse. le <laughs> chapeau 3 puisque c'est le Sénégal. Sénégal mu ngi ci biir chapeau boobu noonu Japon Corée du Sud Iran Maroc Serbie Pologne ak Tunisie ñoo koy et puis le chapeau 4 le Cameroun le Canada l'Équateur l'Arabie Saoudite le Ghana les pays de Galles ou l'Écosse ou l'Ukraine le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande le Pérou ou l'Australie wala bokk Émirats arabes unis ñuy sort par exemple Sénégal Cameroun naturellement pour ne pas réduire chance yi nga xamante continent africain bi da ko am ou bien yeneen continent yi mhm. exception boobu Europe rek moo koy on pourra effectivement avoir mhm. ñaari sélection Europe la ñu jógee euh, alors donc ñu gëstu xool le meilleur tirage pour le Sénégal euh, donc le Qatar les États-Unis le Pérou ou l'Australie c'est assez euh, je vais dire facile pour le Sénégal

avec la ñooy nar a euh, seex euh, ñoom ñooy nar euh, bi mu di Doha Al Rayyan Al Khor Al Wakha ak Lusail huit stades donc Doha moom mooy nar a jël ñetti stade Al Rayyan moom nar am ñaari stade Education City Stadium ak stade Ahmed Ben Ali Al Khor le stade Al Bayt et Al Wakra le stade Al Janoub et Lusail le stade de Lusail Soxna merci beaucoup Marcel Farba Maroun Adja <laughs> Chérif troisième amul de yaakaar naa. a pas de ah, troisième. rek premier ak deuxième rek maa ngi xoolal Cheikh Tidiane Diaw Adja Cheikh Tidiane may naa la Cheikh Adja ah, <laughs> Cheikh Tidiane. Cheikh une minute rek ma may la voilà ci li Marcel wax surtout pour bi nga xam ne moo war a nekk meilleur tirage pour le Sénégal wala le pire tirage pour le Sénégal. waaw man moom meilleur bi xam naa ni ci boobu laay taxaw comme ni ko. Euh, Marcel waxee bon je pense que suñu bokkoon ak euh, Qatar euh, pays organisateur nga xamee ni moom tête de poule lay nekk ñu am Allemagne nga xamee ni euh, moom mooy doon ponkal bi foofu Sénégal ci chapeau 3 bi nga am ci suuf Équateur wala Canada ça aurait été l'idéal vraiment je pense que même première place bi sax foofu Sénégal dina ko mën a concourir sans problème même si c'est l'Allemagne moo nekk ci chapeau 2 c'est en tout cas ci kanam incha allah merci beaucoup Chati Diane Diaw léegi dañuy jàll ci leneen muy de quoi est-il le nom